salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet di kontaan bu baax a baax saa su ne ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd talent à l'honneur alors talent à l'honneur 15 jours bu jot eh, dañuy tànn benn ndaanaan bi nga xamante ni mën naa am ñu xam ko mën naa am sax eh, duñu ko xam mais l'essentiel ko mooy na am talent ba ñun ñi nga xamante ni ñoo ko invité bu ñu ko taajee fii yéen internautes yi di ngeen ci bég bu baax a baax alors ki nga xamante ni moom mooy moom la ñu invité tey duñu ci présentation bi ndax Njaga Mbay euh, kan mooy sa papa ñu ne El fay kooku rek doy na doy na présentation alors euh, du ñu sore si wax bi dañu koy bàyyi mu nu yokk sëñ pour pourquoi pas euh, safar gi ñu bëggale ko suñu mbokk internet yi aca kan ngeen ah, Kanifeu mm. li mu ah, sajj ci Serigne Saliou di ci bëggalee suñu mbokk murid ndax xam ngeen ni ngi ci ñi ngi ci eh, safar bi eh, wala wutale li nga xamante ne mooy bés bu tedd bi di ah, màggalu Touba. alors Kani eh, balaa ñuy sori ci waxtaan bi dama lay bàyyi nga nuyoog bokk internet yu Dakar Net ñu ñëw ci yaatal bi. waaw maa ngi nuyu waa Dakar Net bu baax a mm. baax. Mm. di kontaan nag tey ci sama teewaay fii nii. équipe bi yëpp maa ngi di nuyu bu baax a baax. di kontaan sama teewaay fii di kontaan ci yow tamit bu baax a baax waaw ah, di kontaan daal ci émission bi nuyu ñëpp. di bëgg ñëpp. Mm-hmm. alors sama sama laaj bi njëkk mooy. Mm-hmm. ndax ndaanaan nga si ñaari boor. si eh, mm-hmm. papa si si ndey. Eh, ndaanaan bi nga xamante ni say waajur doon nañ ko. lan la posé si carrière est-ce que da nga war a nekk ay doomu ndaanaan rek forcément da war a way. déedéet mooy li may wax toujours rek. parce que sa papa nekk ndaanaan. sa maam nekk ndaanaan taxul nga way parce que gis nañ fi ay artistes yoo xam ne amuñu doom yi way parce que bëgguñu ko waaye nag bu ma yàlla defee macha allah ma judd ci famille ndaanaan ci wàllu yaay ak ci papa yàlla def ma màgg nag bëgg way yàlla dugal ma ci macha allah ma ciy bay sama waar ñoom amoon ay jafe-jafe pour bi nga taamoo ni da ngay way ñoom ndax dañ la tere wala dañ la bàyyi nga way déedéet aw ma ci benn jafe-jafe macha allah mm-hmm. ndaxte xam nañ ni bëgg naa ko mm-hmm. te it doonu naa ko parce que macha allah sama papa moom lay def kon su ma jógee bëgg koo def samay mbokk duñ ko bañ xanaa dañ may ñaanal yàlla rek gën ma ñaax ndax milliard moom yombul mm-hmm. surtout nga nekk jigéen dañ lay ñaanal rek yokku la jom yokku la courage nga dem. benn laaj boo xamante ni amaana sax mën na bañ a sori ci waxtaan bi mais foog ñu dugal ko si après ñu eggale si si yeneen sujets yi mhm. benn laaj mooy dañu gis yàggul dara même pas deux jours mhm. ñu gis ah, benn titrage benn site d' information titré ni comme quoi que ni yow da ngay ñaan ndimbal si mhm. say waajur est ce que loolu mën nga ko confirmer wala déet waa loolu ku dugg xool di nga xam ne ñoom lañu ñu bind ak man li ma wax bokkul laa ciy wax ku bëgg a xam lu la leer ci loolu boo duggee ca ña ma invité nga xool ko di nga xam ni la bind ak la ma wax bokkul. yow ñaanoon ni bël ko en fait. déedéet. Hmm. d'accord alors bu ñu bu ñu gën a avancer tuuti gis nañ ni yow da ngay reprendre say woyu maam. Hmm. ndax yow da ngay woy rek juste euh, traditionnel bi wala da ngay woy si moderne bi également. man boo ma tegalee traditionnel dama ci woy. Hmm. nga tegal ma moderne ma woy ci. mais nag mais nag euh, kan yi dama lay dagg. gisaguma moderne bi mais li ma gisee mhm. traditionnel bi nii. Mhm. xam naa sa maam fu mu tëdd bëgg na. ndeysaan. c'est pas déglooguma la 100 pour cent. ci ci mhm. moderne bi. mais traditionnel bi tamit am nga ci atout quoi en fait est-ce que doo ko exploiter. waaw parce que comme li ma la wax rek sama maam traditionnel la doon def mais da cee boole moderne. sama papa day way traditionnel da cee boole moderne. parce que ak sama génération sax nga gis xale buy way traditionnel xam nga y mais ba nga xam ne tey jii fu ma toog ñu tegal ma xalam baro xalam ma way boo ma tegalee acoustique ma way nga tegal ma musique mbalax ma way kon loolu sant yàlla la ak jàng. est que da nga dem ci des wala wala sa papa moo la doon jàngal biir kër gi. sam papa jàngal na ma teewul tamit demoon naa foo xam te ni waa Factory mm. dañu doon jàngal ay musique balaa nekkoon def naa formation bi ba am ci samay diplôme macha allah sant yàlla bu baax. Mm. bala ñuy eggale waxtaan bi comme ni ma koy faral di waxee beaucoup de musique peu de parole mooy philosophie émission bi bu mhm. ñàkk léeg-léeg dinañ cabaxal ay question mais naturellement dañuy bëgg artiste bi imposer boppam wane li nga xamante ni moom moo nekk si moom ban morceau nga ñuy man damay def sama soir te xam naa ne internautes yi euh, duñu ma dinañ ma ànd dinañ ànd ak man si si loolu rawatina sama yaay jooju toog ci régie bi ñu maane Jaga Mbaye laa bëgg nga sàjjal tuuti waa jeex na fag ba nga boole joogi di geek biram digi samba la kurom saa siki samba la ganjuleen siree cees waaye ma teengaat neen soogi di geek biram digi samba la kurom ndeysaan mi ngi noonu mi ngi noonu yaram daw na nee naa ne yéen waa bi yéen waa Instagram bi am ngeen soxla ndax lii bu ñu ko daggee sénégalais yi dinañ ci bég bu baax a baax mm. ndax comme ni may faral di wax rek nag ndaanaan moom ndaanaan ndaanaan du jur lu dul ndaanaan ndax bu ñu nee abale leen micro yi ndaanaan yee tax xale bi kenn du ko wax abaleel sa micro ndax la muy woye neex yow est-ce que du ma doon est-ce que du sol yére di la baat <laughs> parce que nga woy dafa rëy en man Ah, baro baro waroon naa ko nuyu nuyu ma ko mais guitare bi xam nga moom day fay mi ngi ñuy ah, fay mi ngi wax ak ñun ah d'accord alors li ma bëggoon wax mhm. dama gis ne yow mhm. macha allah da ngay woy sax sama xel dafay laal dafay dem tuuti si ay décembre mhm. et que bizarrement ay mboq ngeen ndax euh, maamam Samba Jabari Samb ak sa maam Jaga Mbay ñoo doon ànd euh, def lu ne ci aar yéen ñaar ban link ngeen am ndax am ngeen ay ay ay waa Aïda Samb sama tata la parce que famille Gawlo ñëpp benn lañ te fa maamam ak sama maam ñoo bokk xëy na nag miinante boobu amul suñu diggante man ak moom mais doon lañ déggante ay temps nag wante miinante bi amul suñu diggante du ñàkk nag incha allah dinañ ko doxal bu baax a baax ndax mbokk di moom fi nekk ni ñun ñoo ko war a téye ñun xale yi aussi relève bi yéen yéen yéen si seen loxo la nekk ah, musique bi ëllëg si seen loxo la nekk mhm. en fait est-ce que xalaatoo ni par exemple yow mi nga xamante ni comme moom sa tata mhm. war nga mën a jóg yaag sa ngeen dem seetu ko mhm. yéen doog moom waxtaan ak moom pourquoi pas sax ngeen def benn single boo xamante ni da ngeen reprendre seen wayu maam bi incha allah loolu dina ñëw day ñëw mhm. day ñëw te ñu ngi ci liggéey boobu incha allah nañu xaar lépp nañu xaar kani ci facette yu baree baree bari incha allah ñu ngi liggéey mhm. ñu ngi lalu di liggéey te bu ñu génnee incha allah dinañ xam ne kani mii jaaxaanul day liggéey mhm. incha allah alors dafa mel ne kani ah, bu ñu juumul ñaari single nga jot a def si si marché bi donc gis nañ ni tamit ni yàkkantiwoo est-ce que dafa am benn label bu nekk sa ginnaaw boo xamante ni moom moo lay jàppale pour sa carrière wala waa sant yàlla macha allah ndax maa ngi liggéey ak waa Art bi Management. Mhm. muy Papis Niang mhm, maa ngi liggéey ak ñoom ñu ngi ci ay projet macha allah yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi ciy liggéey daal xam nga. Mhm. liñ naan tepp tepp moo gën yuréet te ku ñu xam foo jëm doo egg. moo tax dañu naan rek ñu ngi ñu ngi liggéey incha allah. te du yàgg dara. maanaam kon troisième single bi la ñu mën a jàpp. nañu xaar lépp mi ngi après màggal lay doon wala après gàmm wala. waaw nañu xaar lépp surprise lay nekk. Mm, wala da nga bëgg a sa ay surprise. <laughs> déedéet ah, man bëgguma surprise man dama bañ surprise. Sénégal lañu nekk Sénégal lañu nekk. alors euh, bëggoon naa xam tamit lan moo lay faral di inspiré bu weesoo say maam naturellement lan moo lay faral di inspiré ci say musique say li ngay composé. waaw li may inspiré mooy man. Mhm. damay déglu ay malien lu bare bare. malien mami xam na ci dara Tafa Dabo xam nañ ci dara ñoom tout le temps dañ may dégg malien laay ëpp lu may déglu Sénégal dama leen di déglu ndax ñëpp mën a way macha allah te ñu ngi ci yoon ñëpp daal lay déglu ndax boo dee jàng ne ci yoon bul xool ni kii laay dégloo kii déglul ñëpp ndax ku ci nekk mën ngaa jël ci moom dara mais du ñu lay faral di gis si spectacle yi comme par exemple benn waale bu tëggee ñu gis ne da nga bokk ci euh, parce que say moroom ñoo fay nekk di première partie bi. Mm-hmm. est-ce que loolu lu tax du ñu lay gis ci spectacle yi. waaw pourtant maa ngi koy def. Mm. maa ngi ci maa ngi koy def am na ay kii waale yoo xam ne doon naa dem di def playback. Mm. ak yooyu maa ngi maa ngi maa ngi presté bu baax a baax. mais nag euh, liggéey bi dañuy xaar tuuti rek mm. euh, am na ñu def am na ñu doxee parce que li ma la wax léegi nag tepp tepp moo gën yuréet ñu ngi ci yoon di def ndànk-ndànk di ñaan yàlla mu sottal lépp incha allah ñu lay gis fépp bu neexee yàlla. sa rapport ak génération bu bees bii nii xamante ni yéen bokk génération man rapport nga am ak ñoom. ay rapport yu naa rek laa am ak ñoom fu ma dajeeg ñoom ñu sekk jàmm nuyoonte kafre ku ne dem. ku ne dem alors sa sa sa papa ah, Youssou Ndour xam nga ni diggante ak El Hadj uh-huh. euh, lu yàgg la woon. Uh-huh. Euh, ndax aussi rapproché nga ko pour jege ko un peu pour mu mën la jàppale sa carrière. parce que fii kat gars yi dañoo wax benn affaire nee nañ fii mën nga am talent lu mu amam talent foog nga jege ñenn ñi. Mhm. donc euh, voilà est-ce que gisoo ni tamit jege Prince Art pourquoi pas Ngoné Ndour. Mhm. ndax gawlo la comme yow. Mhm, dëgg la sa tata Ngoné Ndour. la. sama papa Youssou Ndour moom tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax relation yu nice rek la sekk ak sama papa. wax dëgg yàlla macha allah xam naa ni tamit xëy na gis na ma dafa am lu muy xaar. ndaxte ñoom du ñu tëb tëb rek def leen lii dañuy xool ñuy jaar ba keroog ñu yegg si maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal di ko jox respect parce que def na lu ne ci musique suñu papa Youssou Ndour. Mhm. alors bu ñu bu ñu ñëwaatee un peu sa papa est-ce que ça t'arrive parfois. nga jël say morceau papa nga ne da nga siy da nga ciy jouer mu metti quoi wala dafay yomb booy jouer sa morceau papa. waaw muy sama morceau papa muy sama morceau maam yombul. Mhm. parce que ñoom fañ doon wayee la. Mhm. pour jigéen reprendre leen sax du yomb waaye liggéey rek liggéey rek di leen déglu. parce que ñoom ay ndaanaan lañ loo xam ne Sénégal kenn werantewul ndaanaanu Alaaji Faye ak Njaga mbay macha allah jël seen son yombul waaye man li ma ci mën as néew maa ngi ciy jéem ma lépp nag mais maa ngi jéem. Mm-hmm. ma laa sonal waaye damaa doyalul ci way bi est que dama may dara tamit. <laughs> ci sama papa. <laughs> jeex la neex lu la neex. waaw sa ba tey comme jóge ci Njaga mbay jeex na ñu dem si papa El Hadj Faye. sama papa. timma yaay timma yaay timma su ma naree daw dee ñoo bokk jëm yaay timma yaay timma yaay timma su ma naree te duma des ginnaaw billaay duma yoxi yoxi sama yaaya boo yoo jom ji benn la man duma daw te duma des ginnaaw billaay duma yoxi yoxi ay benn ga gawloo jom ji benn njaga mbay la ñuy woowee sa baay ndey Fatma la ñuy woowee sa yaay Samb Siré Bale ñangaane Ramata Faale Yaasin sëy na bu baax nga maa ngi lay gërëm mam faal baax na yaayu seex yi mam faal baax na mam faal maa ngi lay gërëm ah mam faatu yaayu seex yi maa ngi lay gërëm koli baax na Tafa Dabo ngi ay sawaay mu naay boo jom ji benn la isolay bilay woo naa la ngi nee ay waay baro xalama baro xalama baro xalama mama way sama yaay boo jom ndeysaan bëgg naa la mama bëgg naa ay da njaga gawlo sama yaay jël mu muñ yàlla na ko Ndeysaan ndeysaan sama yaay booyo maa ngi lay gërëm si sont les belles paroles de kani fay de son vrai nom alors Kany mhm. man bi ngay way sama yaram dafa daw man Ouzin ah mhm. di leen wax ni rek yéen ci seen émission talent à ba léegi Ouzin ngeen ciy àndal tey ñu invité ki nga xamante ni mi ngi tudd kani fay mhm. euh, kani fay di doom ci El Hadj Faye alors dañu gis ni musique bi surtout nga nekk xale bon déjà c'est pas facile. Mhm. bëri ay tentatives ba ñu si dégg si yenn kaay yi bon jarul may jaar si tur wala sax foog ma jaar si quand pour joxe exemple. Mhm. muy mbir euh, Dieyna Baldé gis ngeen euh, ñi ci xew ak yooyu. Mhm. est-ce que yaa ngi sóoraale genre dérapage yooyu noonu wala sax genre problème yooyu nga bañ ci dugg ëllëg. waaw comme li ma la wax léegi rek. Mm. xëy na nattu du wees. Mm. te ku yàlla tudd sa jaar-jaar ni da nga ciy jaar ala kulli àllin di nga ci jaar. Mm. mënoo koo paase. dañuy ñaan yàlla rek parce ñu ñun ñëpp ay xale lañu rek dañuy ñaan yàlla dimbali ñu aaral ñu boppam ndax xale moom boo yoree xelu xale rek lu ne mën nañ la cee dugal mais nag boo gëmee yàlla am ñoo xamante ni ñu ngi sawet di la conseiller lépp loo dugg. ñu àndee ko yow dégg naa mais ku ñëw nga dàq ni ko musique bi tamit. ah nañ nekk ci musique bi ba ci kanam rek. Mm. ndax lool du wees. Mm-hmm. te musique temps la. <laughs> alors euh, gis naa ni macha allah euh, donc euh, encadrement bi am na solo. damay mm-hmm. gis sax buy wax damay xool ménagère bi ak ménagère bi ak ménagère bi ku góor ah, geeg ku jigéen ki ku xees keeg ku ñuul <laughs> ñu ngi koy def signe à ce que voilà en fa c'est important mm-hmm. ndax comme li ñuy faral di wax rek. musique bi dafa xaw a doy waar. donc foog nga am ñu nekk ak yow di la jàppale ci wax ji di la jàppale ci fépp fu nga xamante ni da nga teg sa tànk. dafa dañu lay bàyyi xel lépp looy def da nga ko war a bàyyi xel. Mhm. alors kani mhm. sànq yaa ngi dégg yaa ngi may woy di ma boros. di ma mhm. wax Ousin Ousin laa tudd. Ousin dama bëgg après nag. nga nuyul ma sama sama samay xarit. Ah, du si ñàkk ah, am naa sama benn jigéen boo xam ne ni dafa sori si man. na may dégg jarul may jaar si turam. sama sama nit la alors kani nga nekk sëtu Ndiaga Mbaye yow kon xam nga ni amoo droit di wayantu. déedéet di way lu ñàkk fayda. aw droit def erreur. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lu ñu wax ñu ne doomu diw la sëtu <laughs> ma am problème ci àdduna ah, bi parce que moom en fait a Mbaye ñun ñi nga xamante ni xëy na fekkewuñ jamono mais liñ ci jot a xam mooy. moom moo doon faral di wax way bu diglewul yeetewul ay naxaate la ay en même temps moom. way dafa am waaw wayantu am wayandoo ana ba mooy jéem a wayal gars yi rek. <laughs> loolu loolu loolu koy dundee noonu mu leer ne yow waroo way lu lu xorom en fait maanaam lu amul utilité waroo ko way waa du bu métti la tënk ba yow doo mën a libéré wu waaw dina ma tënk ci benn côté mhm. waaye ñoom ak seen jamono ñun ak suñu jamono mhm. dëgg la nag sama maam lu mu way lu nekk rek téere la mhm. loo ci jël benn parole boo ci jël rek mën naa yee doomu aadama sama papa aussi noonu kon loolu rek man dama naan ñoom liggéeyal nañ ma ba pare macha allah man damay ñëw rek jàll parce que macha allah ñoom li ñu war a def def nañ ko ba tey foo toog nit ñi jox la cër bi parce que buñ boo demee sax buñ nee la satu Njaga Mbay doomu élage Hadj rek doy na kaar daan te macha allah kon loolu ak cant yàlla la ma leen di ñaana sama maam fa mu tëdd yàlla xare ko àjjana man mii di sëtamit xëy na lu bëri fekkewu ko ci man wante maa ngi koy ñaanal yàlla naan ko maam na nga na la yàlla yërëm te xaare la ca àjjana firdawsiya jërëjëf maam. Mhm. alors laaj bi ma bëgg a laaj bëgguma sori pour bañ a toucher un peu sa sensibilité mais foog ma laaj la ko. gis nañ ni euh, sa waajur bu góor mi El li nga xamante ni moom moo nekkoon ci yéenam ci musique maam naam dem na fu nekk ci àddina bi àddina ko. Mhm. est-ce que doo toog nga wéet nga sentir ni am na loo xamante ni man foog ma dem jëli ko. ndax mhm. comme sama papa macha allah xam nañ ko ci àddina bi. mais am na loo xamante ni man foog ma dépasser ko pour dem jëli ko si wàllu teraanga ak si wàllu lu ne. waaw. xam nga wërsëg yàlla la mm, xëy na nit mën ngaa bëgg dara yàlla bu ci tudd sa wërsëg it doo ko ci am te sam papa xëy na yàlla def na mu nekk waykat lu ne way na ko ci àddina bi mais lam ca bëggoon en cent pour cent amu ko ci damay ñaan yàlla rek mu def ko ci man ba mu fekkee sama njariñ yàlla bàyyi ko fi ba li ma yéene ci sama xol ma defal ko ko Mmh. loolu rek laay ñaan yàlla. Mmh. mais mais du ñàkk di nga lancer message xam naa ci catal émission bi pour à ce que say fans rawatina waa banlieue bi. Mmh. mais tamit bonne volonté yi ñi nga xamante li ñuy gis fu am talent rek. ñu jël def ci moom ay millions. ngir mu prouver parce que fii comme lu may faral di wax rek du baat bu neex rek moom mooy tax nga egg fi nga war a fi nga war a egg. mais su ma sañoon nag maa ngi lay sonal ci way bi mais fallait que ñu def ko ndax xam naa ni ñuy seetaan doyalu ñu ndax mën ñu may benn morceau. boo xamante ni di nga ci bëggalee sama Cheikh Assane man Ousan sama jigéen maane après ñu ñëw jéem a xool nu ñuy tëjee waxtaan bi ndax doyaluñu quand même jeex na loolu mhm. ah, dafa war a dem gën a xool ci pindu bu teen bi gaañi amul baag la léegi mu leer am nga baag del baawal kaa ñi soxla yaa jaroo ma ñëw wuyu la cooli ci pindu bu teen bi gaa ñi amul baag la léegi mu leer am nga baag del baawal kaa ñi soxla yaa jaroo mu ma ñëw wuyu la mu may sa xarijey daaro xarijey ehehe eh. ma kumba ka dak ma ñogo gulu bu sàkk jeexe surga yooy wo wo bekkaay ñu du be bekkaay bu no ma pendaay yaayam laba mi nag ñaaña mi ci kër ma góor ñaay ak mati gay saat doroobe kenn mënu laaj ñaawal use cooli ci pindu bu teen bi gaañi amul balla léegi mu leer am nga baag del baawal gaañ use ma leen woo kër baay Ouzin doo torom ci pind bu teen bi gaañi amul bag la léegi mu am nga bag beel baal gaañi soxla jaroo baro ma ñëw ndeysaan ndeysaan euh, mënu ma woon sax te sama bopp très sincèrement euh, ndax li muy woy dafa dugg sama xol du rek rek li mu tudd sama baat waaye dafay woy ma santi ni ndaanaan mooy woy et ñun loolu mooy suñu suñu objectif mooy di wane ndaanaan yi képp kuñ fi taaj rek dafa fekk nga nekk ndaanaan dañu lay gëstu xool say vidéo xool sa jaar-jaar ba mu leer nañu mën nga li ngay def ñu di daal ñu daal di lay indi fii ndax si deformation la boo xamante ni réew mi mu ngi koy bàyyi xel di bégale bu baax a baax si sama xarit sama yaay sama lépp maane nga xamante ni man ah, man ah, fu ma pikiroo mu naan fa ay doom bëgg ma lool waaye maa ko raw fuuf maane maa ngi lay nuyu di la ziar lan la ñuy tëjee ndax xam naa ni bu mhm. buñ fi continuer di way ak di waxtaan paan la ñuy teg fii ku jooy jox sa morom ndax xam naa ñu nekk si ginnaaw dañuy jooy man moom maa ngi gis nga commencé naa donc euh, pour en fait nañu waxtaan si yeneen i mbir mhm. projet yi bu ñëwee dinañ ñëw fii jàppal ni sa kër la kan yi mhm. saa yoo bëggee ñëw bul woote téléphone wala bu la neexee nga ne Ouzin suba maa ngi ñëw ñu def émission. Mm-hmm, mm-hmm. jàppee ko sa kër. Mm-hmm. def ko ni sa kër. donc lan ngay tëjee ñu la ko suñu mbokk internet yi la nga xamante ni euh, nga lancé wala message du si ñàkk fan si yeeg am di jàmm yi. waa li may tàggatoo rek mooy. maa ngi nuyu ñëpp ñu may seetaan. di leen wax ni nag Kane mi ngi nii seen doom la seen rakk la seen jigéen la. képp koo xam ne mën nga ko jàppale te yàlla tax nga jàppale ko te xam ni ndaw laa rek na ci yoon te fii ku mën amul ku ñu jàppale rek moo am. kani kani doguma la mais foog nga joxe seen numéro ménagère wala parce que du ñàkk dina am ay fans yoo xamante dina am team. wala fans club euh, bu dee numéro bi këru nga ko. Euh, mën nga ko waxee. waa ah, bu nekk personnel de. ñëw wax ko rek. Ah, ah. waaw dina ko wax. Tafa waaw 77. <laughs> 204. 40 38 77 204 mooy numéro bi nga xamante ni mën nga si jokkook ak ménager am mhm. bu fekkee da nga ko bëgg a jàppale mais bu fekkee également da bëgg a ñëw bokk si fans club bi mhm. pour jàpp si liggéey bi nu muy staff bi également nu mu gën a yaatu alors continue alors balaa balaa balaa ngay continuer Euh, xam naa du ñàkk di nga nuyu euh, nuyu nga say fans yi mm-hmm. dama bëgg comme ça nga nga nga nga nuyuwaale gërëmaa la ñu nga war a gërëm ñu daaneelu kooku euh, en beauté et musique waaw di gërëm sama papa rek mm-hmm. di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñi ci ciy jàpp waa aar bi management mm-hmm. Mareetu Papis Ndiaye ñëpp gërëm naa leen di gërëm ñëpp ñu may seetaan rek di nuyuwaat ñëpp bu siise yi nga xamante ne daf maa jàppale ci bépp côté jigéenu Njaga Gawlo la waaye sama maam ba mu génnee àdduna ba tey dafa jël ay doomam téye mënoon na koo fàtte ndax nekkatu fi di gërëm ñëpp ñu may seetaan rek waaw gërëm naa ñëpp di ñaanal sama yaay du fan ak wér ak sama papa di ko wax mbay fekkee lépp bul wute dara incha allah <laughs> incha allah. Mhm. merci beaucoup xam naa dañ siy jaarale eh, bëggal leen yi ñuy doon seetaan j'espère que kontaan ngeen ci émission bi ndax comme li tax ñuy def ko 15 jours bu jot parce que dañuy bëgg saa yu ñu ñëwee rek ñu wan ki nga xamante ni da nga naan waa kii kan la kii fu mu nekkoon di bëggee bu baax a baax boro bi nga xamante ni mu ngi jàmm sante ñun sànq ba léegi ci xalam bi. muy sama papa. waaw gis nga am yëg-yëg da ngeen a déggoo am yëg-yëg ci man waaw baro daf may sant damay woy dara mu ne ndeysaan am ma di ko ñaanal yàlla lii muy def yàlla na yàlla wéral loxoom sàmm ko aar ko ak mbooloo xam naa nag du ñàkk euh, du ñàkk euh, bu ñu jógee ci màggal gi wala bu ñàkk corona bu gën a wàññeeku du ñàkk dina am benn cadre boo xamante ni foo fan si ñuy mbeyraay di ko waxtaane teg ñu def rek nañ ko daan defee rek <laughs> eh, eh. merci incha allah ah, merci beaucoup ça a été un plaisir de vous servir Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission talent à l'honneur seuls les talents sont à l'honneur jamono ku ko fekkee war ca def lu baax jamono lu ay sa gannaaw la baro jamono ku ko fekkee war caa def lu baax jamono lu ay sa gannaaw la nañu boolo baro nañu benno bañ a féewaloo adduna bi yàggul daal nañu boolo fekke war ca def lu la ku jam picc may la pooj bés bu rendee nag da ngay doyal yàpp xam naa ne xale bi bu leen woowee di ko wuyu ndax la muy woy rëy trop macha allah merci beaucoup on vous donne rendez-vous dans 15 jours ci beneen émission beneen talent à l'honneur